sëriñ Ba Gueye bu baax a baax di leen sant tànk yi ak démb yi dañ kàddu yi bu baax yàlla kon dañ ko baaxee waaye loolu rek la ñuy sëñ dana yàlla def nañu si bëri ñu ngi leen sant rek daanaka ñun moo leen di yëngu ci politique si dëkk bi li ma si xam matul fukk si mbëndul foofu. nee na loolu nekkul dara. lu weesu. man may ñëw si man sax. man ku ma xam si pare bi mu ko. jéem a liggéey. ndax loola du suuf kër. ndax loola boole wu ma. li ñu boole ak yéen. def seen histoire. seen histoire lu ñu boole ak yéen. tey kenn la ñu. waaw dinañ kese la. sëñ Thierno bi sëñ Thierno bi sëñ Thierno bi ñëpp ñëpp ak guddi bi ñëw na bu fekk leen dem bàyyi leen lay wax ñëw jëm bàyyi leen bàyyi leen bàyyi leen ak seen Thierno Macky Sall bàyyi leen ak seen Thierno ba seen damay fay ñëw fi fekk leen seen fekk leen seen Thierno seen Thierno da ko ko suñu fan fekkee day dem ay tali kon nag loolu mooy li ñu boole ak yéen bi élection yi desee ñetti fan ndax man bii élection yëpp damaa tëjuwoo kenn gisuma daanaka benn politicien sax gisuma la ma si jublu woon nag mooy sëñ Moustapha Ba jaarale sama lam ma wax ñëpp di dégg Wani sarki naira, an wani sarki sani, can ɗan ba hanga duk wani ya kuma gani. Ba ya tafi. Da wani kuna bayyana da aksa coba ne. Ba ma hana da koo wax ba nga fi jëfee. moo ko ci yàlla def na kenn gis ko si élection. man ni sax gis na ko si élection. ndax boobu dafa nekkoon si sama. kon nag ko si àdduna ne. yéen xam ngeen li ko boole rek. mbaa noonu ko. sëñ bi nee na man man ma dugg si fan. ak kuréel sa kooku yi. ma xool si diwaan. su ma xool Serigne Touba laay xool si. parce que si jéem ma see xam si kus kenn. ndax loolu Serigne Touba dana ko tere woon. soxla bu maa xam si kus taalibe. li ñuy wax sax dama ko dégg. nee na xaw ma si kenn ma koy wax lii ak ay. bu ma si xool bu ne daal. la may xool si yow mooy Serigne Touba. Serigne Touba mi ngi boole ak yéen. ma xam ne. wax jooju ba may wax. boobu élection yi ñetti fan. ma ne leen nit ñi faral yëpp yëpp yi ànd foofu ndax diw laa fa rek ak diw laa faral jarul ay taalibe di xees seen bi jarul Sëriñ Tuubaa bi leen boot moo gën a dëgër loola ma ne leen itam balaa diir bu gàtt di ma teg ma teg sa biir wax de man ngeen ko seetaan ma lu nga xam ne li muy jot sax yaakaar ne nit ñi dañoo ñàkk ci tali bi ñàkk ñu ci tali bi ko soirée naka jëkk jamono Cheikh Modou Fadel ba nëgët élection yu fi mas a jaar nii la daal ndax seytaane di siy dugg si biir xol yi di ko jaxas mille neuf cent quatre-vingt-huit ba sëñ sëñ Abdoulaye joxe ndigal sa Abdou Diouf metti naa ko sa biir wax ngir bëgg nit ñi gindi ko booba élection ñeenti fan ci des wala nit waaye waaye toll na foo waaye booba toll na foo xam ne kenn ku nekk da nga bëgg di la nga bëgg dégg rek ngay dégg te loolu te loolu amul soppi ndax day jaar jàll ba ci histoire bi ko nettali mu rafet wala mu ñaaw sëriñ xam booba waa daayira bis bu ndax danoo ñëw fi moom. sëñ ah sëñ bi jiitu na ko tey. ñeneen ko àndaloon. seetlu loolu ñoom. ñu ne sëñ yëpp naat. dañoo gëppoon. da ngeen bëggoon def ay drapeau yu mag tuddee ko rek tànn lii rek tànn rek bu tànn salatu islam loolu Serigne Touba moo ko jënd noonu la ñu ko doon bu tawee bu ñëpp noonu la ñu war a def. taalib yëpp a def. wax. bu si waxee Serigne Abdou Lahad ni leen. yéen dara. Serigne Abdou Lahad. ne dafa am ak màggalu Touba. booba ñu nekk suba kër Abdoulaye Wade. dajaloo ne dañ ko booba commissaire bu ñu wax Mbale yi moo fi ne woon. boobu yaakaar naa ñëpp fàttaliku nañ. moom lañ daa tuddee drago moo daa wër di ramas. ba ko Serigne Abdou Lahad yëgee. dañu leen. nañ leen fa téye ba màggal gi jàll. ndax yuuxuwuñ ko. man lañ yuuxu. président Abdoulaye Wade. ànd na maag moom ci biir oto ci at mi bëgg a wàcc ay nit taxaw di ko yóbbu ma dikk ñaa ngi toog mu daal ne li ma si naqari mu daal ne li ma si naqari de yuuxu yi waaye biir dëkk bi ñu koy def ndax bu ñu ma sédduti war a sédd sëriñ kon loolu jàll ña ko doon def boobu yàlla def na fii la ñu fekk si kër Serigne Touba Sall bi. fii la ñu fekk si kër Serigne Touba bi Sall bi. boobu président Abdoulaye Wade moo fi nekk. Serigne Moustapha moom Serigne El Hadj Bara. ak xalifaam. moo leen indi ñu ñëw fii tuub. moo leen indi ñu ñëw fii tuub. boobu màggal bi tuub. Ah. ma ne leen lii ngeen di def. baaxul si yéen. ndax defu leen ko ko Serigne Touba ngeen. ndax bu Serigne bi seetaan na. mën nañ leen a jàpp. ñooñu ñoo ko doon def. ñooñu ñoo ko doon def. ñu makki demee ba doon président. ñu makki demee ba doon président. ñenn ñaawal bu dugg di ko yóbbuwaat. ñenn ñaawal bu dugg di ko yóbbuwaat. loolu bu image baax. loolu bu image baax. bu koy defee sëriñ Tuubaa bu koy defee sëriñ Tuubaa bu koy def. ndax loolu mënut am njëriñ. ndax loolu mënut am njëriñ. ndax ñu dëkk si dëkk bi. nañ xam ne. bu ñu ñemee lu ñu si des ñemewul. Serigne Touba kon nag boo séddul Serigne Touba mooy la Serigne Mountakha waxoon séddoo sa kilifa ak àdduna séddoo sa kilifa ak diine kon da ngaa boyal sa bopp ku boyal sa bopp nag la Serigne bi waxoon rek daa waxoon ne dee leen mooyoo fetel dee leen mooyoo fetel day jaar sa kër kuy fetel ku nekk kuy fetel ku nekk kuy loolu nag kon yéen ñi am taw fi yow dëkk si dëkk ku ne sañ naa def la mu bëgg a def ku ne sañ naa kan ànd ak képp ku àndal ndax sëriñ bi tënk na ñëpp waaye nag war may dëkk bi war ngeen ko gën a bàyyi ndax kàddu yi jóge si dëkk bi daanaka bii si biti am na si ñoo xam ne jooy sax dañu koy am kersa ak naqar te mel na ñoom ñoo ko dugg seen yaram te mayu dara nit ku ne mën naa def la mu bëgg a def si yar ak nekk jërë ngeen jëf jërëjëf Mbaye